yàlla def nak mu gàddu li nga xam ne di ndam li fofu ci Kaolack Serigne boobu nag xëy ñu bari ñu ko gëna xamé ci walum chambre de commerce ndax xam ngeen ne union des chambres de commerce yu nekk fi ci Sénégal moom moo ko jiite moom nekk tamit njiitu chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack xam ngeen ko aussi capitaine d'industrie la bi manam chef d'entreprise la ndax ñu bari xeyna ñu ko gëna miné ci walum njaayum auto ak yeneen ak yeneen ñu ci biir ndax mom moy PDG wu groupe CCBM ba tax nak tay ñu fassiyene yéene ak moom waxtaan waxtaan bi nak xam ngeen lu ko sooke moom modi ñu profité rek né dal comme wéru gàmmu teru na te ren moom moy première année bi nga xamné en tant que maire euh, fassiyene yéene na organiser li nga xamante ne modi gam bi fële ci Medina Bay dañ ko laaj tuuti rek yan euh, li nga xamante ne moo ay euh, dispositif wala bok yan créative wala yan innovation la fassiyene indi par rapport ak lu xewon par le passé xamgen aussi jotna dund li nga xamantene modi nawet bi nga xamantene ne ñu ngi ci te fu mu toll ni sax mi ngi waaj jeex di nawet go xam nawet gu metti metti la woon ndax dekk yu bari go euh, amon nañu ay inondation mbënd mi ne xoos ci dekk bi bu won xam tuti rek ana naka la ci taxay fofu est-ce que fu mu toll lepp yemb na sax ngir école yi mëna ibi waye xamgen xam ngeen sëriñ euh, am ñu naan tamit fay def politique ndax def melni ni nañ ci ay fan yee passé mu ne candidat en 2024 lu ci munti am am wala amul tungu ne du tew ñuy natal, dañ ko laaj ci kàddoom ci kanam tuuti lan la ci xalaat dugg moom tamit ci wàllum koom-koomu réew mi ndax ay ndaje yu bëri jot na fee am ci réew mi rawatina bu mujj bi sax jëm ci wàllum li nga xam ne moom la ñuy wax maanaam dund gu seer gi te askan gi sonn na lool. dañ ci waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci wàllum chambre de commerce enfin bref lu ñu fas yéene waxtaan ak moom bari na lool kon duñ def dara rek lu mu suubu ci waxtaan bi te jox ko kàddu gi te nuyu ko Serigne ñu ngi lay nuyu. waaw Cheikh maa lay nuyu di nuyu équipe nga àndal yëpp. jërëjëf. di len féliciter ci engagement yi ngeen def vraiment pour def ben télé en ligne bu bu professionnels. professionnel et deuxième fois di ziare euh, Sénégal yépp ci gàmmu gi et en particulier Kaolack Medina Baye ak Touba Ndorong et inshallah di ñaan yalla na ñëpp gàmmu sé Kaolack incha allah rabi d'ailleurs sax su ma juumalee euh, ci alxamis bi jotoon ngeen amal benn CRD gis naa la fa yaa ak njaboot gi yëpp ak njaboot Cheikh al Islam jot ngeen fa teew est-ce que fu mu toll lépp pour Gamou bi am dans de très bonnes conditions. waaw xam nga ñun ce qui nous concerne au niveau de la mairie. Mhm. Serigne Maye Ibrahima Niass moo ñu dimbale bu yàgg ñun depuis juillet lañ commencé suñ CRD pour Djembat garab nettoyer foofu. defaraat yoon yi bon xëy na ci fin du mois bi tawaat na mais suñu équipe yi ñëngañ en tout cas daal ñun prévoir nañ ko te incha allah l' équipe municipale bi dootu xaarati ba gàmm gi jub seeti mhm. ñun daanaka bu gàmm gi passé rek danañ commencé xalaat te loolu defuñ ko uniquement pour Médina Baye moo ci gën a ràññee ko mais keneen def nañ ko fa demen ak Touba Ndor ak yep danañ leen taxaw bu baax a baax. mais gis nañ Kaolack quand même saa yu tawee rek fay faral di ta té bon gis nga gamu bi dafa tomber genre période nawet bi waaj a jeex tey bu tawone est ce que fumu toni condition yi manam yep yemb na pour que pèlerin yi mën def sen gamu ci numu waré waree. waaw xam nga né dëkk bu toy la mais yow gis nga né inondation yi ngay dégg yep diko dégg Saint-Louis diko dégg gisoo ko Kaolack. gisoo ko wax dëgg yalla amul ben média bu ko gis xeyna ay nit yi wax di jël ay ancien photo di def mais kenn ku génn sa kër dem ci école amul et je pense que liguey la rek parce que dañu sekkat ci canal yi man je pense que avant dañ daan wax ne def nañ te deful bu canal yi sekkat ci ko après fi nga xamné ne amul canal ñu defal leen ay tranchées d'eau dañu am équipe permanent je pense que bariwul problème. école yi instant yi amul benn problème kenn newul ci école yi ce qui veut dire buñ ne bërëb tay jangi suba altine xalé yi mën nañ jàng. non nit ñi nekkuñ ci école yi mais ñun bu paré ci gamu gi am nañ ci addition yi bi nga xam mo moo yor lu jëm ci école yi. loolu daanaka semaine prochaine danañ ci dugg nag pour xool école yi dafa nekk ñu euh, dindi ko parce que mën naa am ay ñax nga fa mën naa am ndox nga fa taal loolu mën naa nag vérifier ko amu ko ci lu ma leer mm-hmm. mais daal incha allah ñun avec l'appui du ministre de l'éducation danañ def ubbi tey jàng tey incha allah. rabbi mais Serigne xëy na bëggoon naa tam xuus ak yow tuuti ci wàllum koom-koom ndax que tey ku dégg Serigne automatiquement xel it dafay dem ci li nga xam moo di wàllum koom-koom. Kaolack na localité boo xamante ne su ma ville Carrefour la. Mm. loolu ñu bëggoon xam un peu accès expérience est-ce que quand même yaakaaroon ne Kaolack ak surtout gàmmu international bi mu am war na profiter de toutes ces potentialités pour mën développer yow lan yan yan. politique bien sûr bien sûr déjà déjà day développer automatiquement parce que de boo

ci ay produits halieutiques ñu ñëw ñu mën koo jaay foofu wala ñu échanger ko. loolu hmm. danañ ko def bon en même temps on va réfléchir très bientôt nan lañ mën a fexe pour mu nekk vraiment loo xam ne day doon événement au niveau du Nigeria hmm. wala de l' Afrique bon loolu nag ça nécessite avec nous pensons que bu autoroute bi pare bu aéroport bi pare danañ ko gën a mën a développer mais li ci ëpp importance nag ñu jox cadre une bonne cadre de vie Médina Baye te loolu am lu ci maire bi wara def waaye li ci ëpp état bi mako wara def daal. comme comme Kaolack fu mu toll mu ngi suqaliku mu ngi dox wala dox. mais bien sûr Kaolack marché moy marché gën dynamique ci Sénégal. Hmm. Ah, té avantage bi mu am moy danaka ci ben endroit la yépp nek yoy tamit ñi ci liggéey marché de poisson bi ah, amoon na ay jafé jafé mais yépp ngeen ko réglé nañ ko ba usine bi fa usine bo xamné ni danaka bam ba mu gënee ak léegi ëpp na 5 ans defaraat nañ fa benen usine bu euh je pense que ministre de l'éducation ministre de la pêche semaine prochaine dana fa ñu inauguré ko. bon am na programme yu bari yoo xam ne nii structure état bi ñu ngi koy def promouvoir tout ça mais liñ ci gën a ràññee gën koo neex mooy partenariat bi ñu def ak UCG di ko jàppale moom tamit pour mu setal Kaolack Kaolack tey mën nañ ne dëkk bu set la voilà mais dañu bëgg àgg ci foo xam ne nii dëkk boo xam ne dañ koy jël muy dëkk bi gën a set ci Sénégal. Mm-hmm. waaw loolu am na solo. waaw ah, mais li ci ëpp solo nag mooy communication xam nga léeg-léeg dafa am ay nit yoo xam ne nii dañuy euh, marketing territorial dafa am solo. Mm. li ni mel yëpp. am na foo xam ne buñ la ko wanoon ci États-Unis nga ne fii du États-Unis mais nit ku baax del wane li baax ci sa dëkk daal nit ku ne li gën a baax ci yaramam lay wane. am na ñoo xam ne dañ fa nekk pour jéem a saboter li ngay def daal. non man du saboter c'est-à-dire mënuñu saboter li may def saboter yàq dëkk bi yàq deru dëkk bi moo ëpp solo ci li def man li def mënuñu ma ko saboter parce que ñi ngi koy defal ñi koy gis mais ku fa dëkk ka fa dëkk am boo koy wax voilà te loolu gënul daal mais loolu ku koy def tamit sa bopp nga ko def. mais est-ce que Kaolack war na mën a doon ab locomotive boo xamante ne dafay suqali lii di réewum Sénégal. si Sénégal mooy loolu Kaolack mooy locomotive bi mën a suqali Sénégal ku bëgg Sénégal baax na ngay defar Kaolack. <laughs> Kaolack waaw. Ah. bu nu na mën a nekk moom la. moom mooy locomotive bi. mooy locomotive bi c'est-à-dire bis bu Kaolack euh, Kaolack décollé avant indépendance Kaolack moo tiré lépp Kaolack moo tiré euh, textile bi Kaolack moo tiré woon gerte bi Kaolack moo tiré woon euh, économie Kaolack xam nga ko ay ONCAD ay yooyu yëpp ba léegi xorom si ba léegi euh, point de transit bi waxuma la gàmmu ngi sax mais imaginel ñaata nit ñoo koy traversé jóge Gambie jëm Touba jóge Gambie jëm Tivaouane jóge nii jëm nii jëm nii bon c'est locomotive c'est kër c'est-à-dire li ma sa xew Sénégal yëpp Kaolack la njëkk xewee hmm. waa kon léegi yow comme yàlla dogal na ne nga Kaolack mooy locomotive bi léegi lan moo tax Serigne des fois muy xool yeneen bërëb yi parce que ñu ngi naan Serigne bon moom li nekk Kaolack dafa mel ni doyatu ko léegi Serigne yeneen yeneen yeneen bërëb la comme Dakar ak fu yooyu y bërëb la visé comme Dakar comme lan. waxoon par exemple chambre de commerce Dakar exemple. Oui mais chambre de commerce àdduna bi sax mën naa ko visé. lu tax demee bah, parce que sama liggéey la mënuma nekk visé ne damay nekk euh, président des États-Unis mais mën naa visé nekk président chambre de commerce internationale oui le problème parce que c'est dans mes activités je suis le vice-président de la chambre de commerce de Lyon moi kay kooku du problème. mais mais mais nekk fii nekk fële est-ce que Serigne loolu du jaxase affaire yi tamit. non xam nga ñaari liggéey la. kenn hmm. ku ne yaa ngi fii yaa ngi fële ñaari liggéey la yu bokkul. kay liggéey pour defar dëkk la citoyen la amul benn problème mais beneen bi mooy liggéeyu chambre de commerce samay activité la samay entreprise moo ci nekk ñun sax ñu ngi prévoir créer benn chambre de commerce euh, aux États-Unis chambre de commerce sénégalo-américain xanaa boobu bu amee dana dana doy wax te danañ ko def très bientôt. <laughs> dana wax nañ wax ci nekk bi amul solo xam nga nit. Hmm. nekk fenn am ful yàlla rek moo mën a nekk fépp. li ngay def moom mooy da ngay am ay bras yu lay téyel li ngay def.

Euh, bi maanaam sénégalais là parce que aussi fan yi passé ñu génn ak ab coow jiitoon na fa jib tuuti ci projet cœur de ville Kaolack bon déggoon nañ sax est du président man mii naa defoon moom interview Ablaye Sow mu ne carrément un décret boobu c'est un décret de complaisance. qu'est-ce que lan moo xew exactement ce décret boobu. waaw xam nga ignorance dafa baaxul ignorance. Hmm. ignorance mo gëna bonne sax euh ak ndof décret bu se réew signé.

décret da nga naan décret faux décret la mais décret bu ñu ne baax la pare na décret comme ça loolu nit war tërus wax ko ku xam dafa am loo xam ne nii bu ko nit ku wérul di ko wax ku doof yëpp répété bu ñu nee weer waa ngi nii nga beneen a nga ne est-ce que daa jar répété comment on peut dire un décret complaisance nu mu ci toon la ma lay wax rek wax gi rek ak ngeefu ndof la. ba tey léegi Serigne ñu continuer am solo parce que xëy na dinaa ñëwaat point yi bëgguma woon point boobu ndax gis nañ ne ki nga xamante moo directeur ville de Kër de Kaolack jotoon na fi def sax conférence de presse ba jotoon génn sax ne bon apparemment dina porter cette affaire au niveau de la justice kon ce qui veut dire c'est une affaire très sérieuse ak lu non c'est pas très sérieux du affaire dara mais wax ji mu wax lañ koy wan ne ko nañ ko justice dana wuy ji Kaolack yaakaar du taxaw ak euh, juge naan ko décret complaisance loolu rek la ci bëgg d'accord.

Manon naa gën a baax rek mënoon a mais problème euh, euh, Karim Fofana. Mhm. dimanche mi ngi ñëw rencontrer les opérateurs économiques discuter ci loolu et je pense que continuité la te loolu mooy que je bëggoon rek mooy ndaje bi du ndajem Dakar rek sectoriel la waroon a doon looloo taxoon sax chambre de commerce waroon ko organiser waxuma ñu boole ko ci organiser permettre ñi nekk Dakar regroupe au niveau de chambre de commerce Dakar acteurs yëpp ñëw wax seen doléance ministre bi mën naa toog préparer ko comme li président wax dans 21 jours région bu ne indil ko ay préoccupations permettre ko jox ko mu jël mu jël décision. ñun mhm. loolu lañ doon wut mais dimanche danañ def bu Kaolack bi déjà incha allah. dimanche di ngeen def bu Kaolack bi. waaw ministre bi va se déplacer lui-même avec le gouverneur qu'on regroupe vraiment les vrais opérateurs pour que nous réglons l'eau. pour nous waxtaan Donc apparemment sortie bi gis nañ ne am na lu mu jur mais je xam un peu est-ce que quand même les décisions nga xamante ne jot est-ce que ce sont des décisions réalisables réalistes et réalisables quand même en aussi peu de temps. oui c'est réaliste et réalisable si on fait le travail. comment nu koy ah oui nu koy def Les américains yi di wax mooy gis du it wax taxul régler l'affaire? nañ ko def gis du hmm. voilà suñ ko defee rek affaire yi réglé mais li ci ëpp solo ci li may wax mooy c'est un da doon ressembler un peu à l'importation tu sais que l'importation pour nga wàññi ko ñaar rek nga man wàññi sa taxe comme ni ko président de la république wala nga subventionné ko ñaar rek la am mais lii régler Sénégal pour que duñu waxati ay guerre économique ak yooyu mooy ñu fexe ba produire et je pense que le président loolu la njëkk a wax loolu mu njëkk a wax ah produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. leur rek doy un programme doy un programme président bu fi ñew ne li rek lay pendant 5 ans comment ko que ñëk réussir rek réussir mais gis nañ c'est pas la première fois quand même slogan humain mel noonu Serigne est-ce que yow a do bay dans la vallée du Sénégal. exemple est-ce que waa maa ngi bay ceeb maa ngi bay ceeb waaye ceeb bi may bay yëpp li ci génn ko si néew daara yi laa koy jox daara yi nga koy jox waaw jënd ci dara kay xam nga dafa mel ni ba ñu wootee li nga xam autosuffisance ak yeneen yi ci biir yooyu yëpp jotoon ngeen ci dem mais gouvernement Sénégal waxoon na 2017 la ñuy def li nga xamante ne mooy deadline bi autosuffisance alimentaire booba léegi wala en riz sax laay wax pour être beaucoup plus précis mais booba léegi gis nañ ne ñu ngi importer ceeb ak yooyu est-ce que jaaduwul tamit benn instant avant ñoo continuer di gën a avancer ñu taxaw ñu ne xaaral ñu def benn bilan xool lan la ñu jot a def fan la ñu toll ci mbir mi ak lan moo manqué. wala non bilan bi kay bu ñu ko defee ba léegi ñu ngi importé ceeb jarul bilan li ñu war a wax kay bilan bi ba léegi ñu ngi importé ceeb li ñu war a def kay mooy fexe ba bañ ko importé te loolu mooy bay ko mu doy te fexe ba ki koy bay ñu rémunéré ko bu baax ba du ba du ba ba ëllëg mu mën a bayaat. mais ay ay centaines de milliards dugg na quand même dans la mais bu dugg mën na dugg mais est-ce que fa mu war a dugg dugg na fa. su le na wara wala nañ ko xam c'est bien que Sénégal di import bi mais li ba import bi cher trop local bi yomb et en même temps il faut que nous ñu xaw génn suñ xel ci que bi ñu jëm nous ne dañuy dund bi man lima gis ci comme bi mom moy yok kom kom nit ñi ne nit ñi comme am revenu xam nga un américain ak nous boko waxé waxee la quoi

mais il y a beaucoup d'autres de des consommateurs mënoon nañoo jéem a orienté nit ci nit consommer que de pousser toujours prix bi prix prix mais parce que nit ki euh, mën nga lekk lekk ku baax bu baax ci say wér yaram te du cher daal mhm. waaw waaw kon jàpp nañ ne parce que am ñu bon tout ça c'est bien beau mais euh, le Sénégal est tellement préoccupé par des débats politiques fu mu toll nii xel 2024 ñu ngi naan fu mu toll nii mbirum wàllum élection présidentielle tax na ba nga xam ne sax euh, nit ñi ni ñu war a concentré wu dëgg-dëgg ci nga les moo activités économiques le débat économique nit ñi sax defatu ko yow en tant que acteur économique est-ce que xaw a am jàqare tuuti non non jàqare bi mooy waa presse bi yéen yéen yéen a war ñi vers débat économique mais le débat économique ne vous intéresse pas yaakaar des débat yu leen dóorante rek moo leen intéressé xam naa ne yi moom vous êtes à la porte de tout le monde. non mais Serigne mais il faut qu'on il faut qu'on vous dise la vérité. xam ah, nga dama koy wax toujours keroog damaa dajeeg. fële Aïssatou Diop Fall bi may interview sama xarit la <laughs> sama xarit ni ko koy nuyu au passage waaw ma ne ko ma ne ko Aïssatou Diop il la yow tamit nag saa yoo xëyee yaa ngi jàngat nit ñi ne la jàngar yow tamit nag <laughs> wala ñu def jàngat Cheikh jaab bi ah <laughs> kenn mosul gis bi non la presse eh? et c'est vrai que c'est pour ça que looloo taxoon sax ma bëggoon ñu dugg ci débat bu intéressant les chambres de commerce ñun dañu yaakaar chambre de commerce hmm. moo mën a créer débat économique tay actuellement limay def ci économie man saa mo woy ki ki kii nu émission lu ci ëpp ci débat économique. c'est vrai voilà c'est économie réelle. Mm. c'est pas une économie théorie. donc chambre de commerce mo warono man mën a créer débat économique parce que chambre de commerce bu doon tey chambre de commerce Kaolack chambre de commerce ties ñi ngi invité di wax di former di invité presse bi di tout ça bu boobaa da nga gis les informations économiques venant de de de ay nit yoo xam ne ni xam nañ

je pense que jaaru ak man rek jaar na ci ak ñu wax Massamba sek jaar na ak Lamine ñami tay jaar na ak man waye lolu du amu mucc lu yag yag da nga am fo taxaw adama euh yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ayatul munafiq ñet la nitu ku nafiq isa hadasa kasaba bu waxtane lam lay wax du deug wa isa ixtalifa khana buñ ko yono mu mu war ah ñetta sa xadasa kadasa wa sa ah, awada ixtilafa bi sa tumina xaana mooy bu la diggee wor la boo ko wóolee mu wor la man yàlla xam na ne sama gis-gis ci chambre de commerce Dakar bi fi Lamine Niang jógee avant mu fay jóge moom dafa jote woon ak Lamine Niang te yaakaar naa tudde woon na Lamine Niang doom te ñi may wax ñëpp xam nañ ne su tekkee dara tey Lamine Niang moo ko def waaye avant la Niang di génn àdduna jote na ak moom vérifier ko. est-ce que loolu c'est pas un peu privé est-ce que wala public la wala loolu la dem loolu. waaw mais xawma luñ jote hmm. ndax xam naa ne ci wàllu économie la ñu war a jote ndax ñoo bokkoon chambre de commerce hmm. ndax xam naa ne bokkuñ di ngoro bokkuñ leneen yaakaar naa ci chambre de commerce rek la ñu war a jote te loolu lañ jotee hmm. ah ba bi la Niang génnee àdduna. man mii di ko jaale ji sax dama ne kañ jaale ji bëggul dem il faut nga génne ko ni mu ko génne parce que bu ko censuré wax ko moom nee naa ko nañ dem bëggul jaale ji xaw ma nag après dem na te yaakaar naa sori woon nañ am na lu ma ko ci waxoon sax ne ko lii baaxul ñoo bokk benn sëriñ hmm. dégg nga ah mu ñëw nag tafu ci sama kaw ñëpp gis nañ chambre de commerce bu ñu ma masaana ñëw même bi Lamine ñaa bindee ne génn na chambre de commerce moom da daan ñëw ne man vice président maa ko fi toogal li kiy def jaadowul ànd ci ñun suñuy liggéey dugg ci suñ biir jéem a am sama confiance ba bi élection taxawee nga xam ne élection yu normal la moom mu ñëw ci man ne ma gars yi ñi ngi bëgg a def loo xam ne nii jaadowul mooy dañu bëgg a xool ci seen biir rek seen association yi ñu teg fa kenn ma ne ko dangaa bëgg mu ne waaw mu ne ma soo ma jàppale ma ne ko ah mën naa laa jàppale amul benn problème ndax man d'abord camp bi faruma ci ndax camp moom bu lu lu ñu dal ci chambre de ñoom ñoo ko ci teg parce que ñoom seen association la ñuy téye bëgguñ chambre de commerce bu am doole walla de ndekete moom bi muy ñëw ci man dem na signé signé kayit danaa la ko woon ne Ibrahima loolu lay jàppale ki bëgg contre dem na foofu si signé fa kayit ne ko loolu lay jàppale naa la ko woon léegi nga téye ko kayit bi ba pare boo bëggee ma jox la ko bi mu ñëwee ci man ah ma dem mu ne ma dangay dem nag seeti grand serigne de Dakar Pape Diagne ma dem seeti Pape Diagne Pape Diagne ne ma duma ma jàppale Ablaye Sow parce que maa ngi mooma moog Lamine ñaa ñoo àndoon di ma xeex man ak Ibrahima Diagne musuñu ànd ma ne ko non jappelé woko man jappelé ma dañu bëgg sambul bi soppi ko sambul dafa nek ci dicta bo xamné ni baxul man iño bi ma bëgg doxal il faut ko ma and ak sambul de commerce Dakar pour avancer mané ma budé yow wolu na la yakarna naa luy réunion fii Touba Sandaga lañ ko doon défé tous les jours ba yàlla def loo ñu ñu am li ñu am li bëggoon boobu nag li ma ci jublu woon du moom moo ma intéressé woon. Hmm. li ma intéressé woon mooy wanoon ñee leen vous ne pas majoritaire parce que élection da mën naa jaar ci tournant bay di xawoon na cee maandu jéem na ci arrangé tuuti waaye euh, yàlla nag yàlla yërëm muy Mansour Kama et c'est normal ah Mbagnick Diop Ahmed Fall Ibrahima Lo ñëpp ils étaient contre la candidature de Sow violemment même So amé ñaar ñoo ci doon wax moy man la ak Cheikh Cissé bu ina ko ay yeesal jeex na ñun ñoo top ba ñu topp tamit amuñu doolé dañ doon wax du du doole naan ñun ñoo fi man dañ doon expliquer nit ñi ne leen dañu bëgg chambre de commerce génn ci dictat patronat parce que xam nga li waji di wax Eh, eh, jinax bimu joge ci kaw ne tip daanu mus ñew fekk ko fa naan ko ba dara jot la soxla nga mu ne ko dimbale ma ba maag sama jàmm rek yow demal rek te ba maag sama jàmm ñun dañu japp ne chambre do commerce tant que patronat mi ngi ci wax naan da koy defal rek da koy yaq xam nga mus mom foko fekk mu naan muy fekk jinax naan ko kay ma jàppale la xam nga amna neen lu ci nekk bon. mais le reproche patronat bi juste parenthèse rek. non patronat bi li ma koy reproche yaa leen ko gën xam. mooy waaw d'accord xam nga ko bu baax yow tamit xam nga ko loolu jër ta wax patronat bi hmm. su ma nee patronat du kenn du kenn dafa nekk or du patronat on parle l'organisation les organisations professionnelles sont très utiles ñoom ñëpp sectoriellement am nañ entreprise yi nekk ci biir la la efficace la fa entreprise yi nekk mooy dafa amul démocratie interne xam nga démocratie interne foo ko mën a xamee rek mooy luy changer hmm. mais mënoo dégg ñoo xam depuis 30 ans ñoo fi nekk suñ toggee ak état di ko bëgg a wax transparence di ko bëgg a wax bonne gouvernance et toi-même amoo une bonne gouvernance léegi man ñoom sax ñu mel noonu dérangé wu ma mais liñ bëgg jël loolu dugal ko ci biir chambre de commerce chambre de commerce nekk institut public boo xam ne nii bu baaxee bu baaxee dana Sénégal dana baax bu baaxul du baax tey yaa ngi gis keroog Arabie Saoudite mi ngi ñëw fii ànd ak ministre de l' investissement kan moo nekk ci avion avion yëpp ay hommes d'affaires ay waa chambre de commerce président de la chambre de commerce vice président bi ñoo ñëw ak homme d'affaires yi ñom loolu lañ xam ñu ñëw seen avion liñ indi seeti président ñëw signé ak ñun dem ci biir e mois bi tamit loolu la ñun euh, mois prochain le 19 euh, chambre de commerce union ak ay qui yi ci sous-région yépp dañu wara réunion ak euh, le président de la commission de e mois parce qu'il n'y a que la chambre, de commerce qui est désignée pour me convaincre, pour me conseiller et moi. Mais vous reproches assez souvent, si vous au nord de l'Union, vous mm. avez des membres de votre mairie, comme vous avez Côte d'Ivoire je voyagé 100 francs voyagé, voyagé. voyagé, un membre Nous avons Union. Côte d'Ivoire, outil, la lu mu fay wuti sax soo nee union bokkuma ci te union moo war a dem wuti ji Côte d'Ivoire looy bëgg a dem pour bëgg a tukki rek xam nga loolu moom moo la wax te waxuma la ko mhm. te ñun danañ ko régler su fekkee union mooy woote union mooy woote nam fexe ba porox ndoorlu ba dem fa lu mu fay wuti su wutee kay na dikk bokk ci union salon de l'agriculture mi ngi ñëw ñu ñoo koy organiser xam naa ne tukki rek la fa bëgg wuti fa dara ndax xanaa jaayu fa matt mi muy jaay ah. jaayul fa mat mi muy jaay xam nga koku sax ma nek fi di wax lu yar daf may tarder mi man dafa am lu may bëgg lu may tarder daf may tarder lan moy problème bi serigne non problème que jàppale nga ko wax nga ko tout ça wa mais bi ma ko jàppalee ba paré dafa wor dem jaar yoon wu gëna graw la ma doon wax ndax man biñ paré def na lima wara def bam tok toog na am gatché waroon na am rus mi di ñu dégg mais man dama am intérêt ñu dégg ñu xam nga lu tax hmm, damaa convaincre ay nit ne leen woteel leen ko ñu bari ne ma soo ko woteelee dana la wor ba ca biir xeetam xeetam bu mu jege ne ma ci ba ma la galee la wor mais man je n'étais pas intéressé dana ma wor wala du ma waaye bis ba ma waree ma leeral nit ñi ne wor na ma bañ xam ne seqatuñ dara imaginel tey ma toogoon di làqaale loolu moom mu nekk fa liggéeyul dara deful dara ba mbir mi yàqu dañ naan sëriñ yaa ñu ci dugaloon waaye man deux mois après ma gisee ne day yàqule dana dama ko dama ko leeral débarqué wul ci moom ba set ci wecc li am solo moom mooy léegi waxatuma ko waxatuma ko dara élection dafa jot nañ dem élection su fekkee moom confiance bi moom la ba tey dana renouveler amul benn problème. mais ñoom dégg naa ne élection parce que man posé naa ko question bi ma ne ko mais vous êtes pour également li nga moo di renouvellement chambre yi moom effectivement bokk na bu mu nee jëpp ñëw. li nga xamante ne di dossier boobu da koy yëkkati teg ko ci table bi waaw loolu werante ko nga baal ma teg tubi ndegam koy bëgg na ko dox ma dox ko rek élection am jërte nek fi di werante naan da bëgg na bëgg ko ñun dañoo bëgg élection am loolu rek la le problème dañoo bëgg élection am mais dégg naa ñu ne ñoom ñi ngi wër di wax naan dañoo bëgg ñu annulé loi bi war a élection ab loi bu ay député chambre de commerce de Dakar don xeex ne nañ ko voté pour ñu def chambre nationale pour ñu def chambre ñu wote ko ba pare yow nga bëgg a lat nan nañ ko annulé si du gatch am ay ci wax oui def na ay la chambre de commerce chambre de commerce euh, ki num tudati bu bu bu Saint-Louis mais garaawul yoy amul solo élection Quelle dana am. élection ah non ministre bi moo def moko wara def convoquer le collège électoral D'abord, nañ décret bu ñu génnee décret ba pare ñu dem élection mais dana am ñun danañ ci def pression bu ñu man man dama créé benn loo xam ne nii affaire politique teg naa ko fële ah waxatuma politique. non dinaa ci ñëw ci kanam. waaw danaa la wax teg naa ko fa déedéet dama am beneen loo xam ne nii. Hmm. dama créé xam nga lu ma ko tuddee. déedéet. jàppoo aar chambre de commerce parce que bukki yi dañoo bëgg yàq chambre de commerce te loo xam ne nii say maamati maam fa lañ ko fekk da nga koy yokk. mais mais Serigne. léegi nag man dama ko bëgg a aar. waaw danaa informer nit ñi xam nga Sénégal yu bëri xamuñu woon luy chambre de commerce dama bëgg nit ñi chambre de commerce développement chambre de commerce jox ko gëdd boobaa état bi dina ko jox nous lañ actuellement parce que par exemple da nga ni man fan pour revenir un peu à également qu'il y a eu des projets yoo xam ne jot nañ ko taxawal mu des mu jëm marché d'intérêt national mu jëm encore euh, maanaam immeuble bu ñu chambre de commerce ils vont créer une un institut consulaire également tout ça lan mooy problème bi. sàcckat sàcckaayu xaalis rek la. ay projet chambre de commerce xaalisam da ngay jël nga jàppale entreprise mais ay tabax du chambre de commerce da ngay dem nga jàppale entreprise yi financer leen former leen loolu mooy xaalis chambre de commerce mais soo demee naan damay tabax immeuble commission rek lañ ci wut te d'abord soo nee gare gros porteur wala marché international. Hmm. soo ci bëggoon mu leer da ngay woo chambre de commerce yëpp. ñu bokk ko parce que marché d'intérêt national la. mais président moo ko validé entre waaw mais xam nga président moo ko validé. waaye moom moo waroon a am gàcc pour laaj ko pour moom rek war naa mën a dem ci président ne ko jox ma marché bu ñu ko ko waxoon moom rek dafa war a woo chambre de commerce yëpp amu ci majorité état ba léegi dafa téye majorité bi mais loolu tamit danañ ko lijjanti parce que su ko defee noonu du am njëriñ chambre de commerce bi nekk Kédougou noo ko ci boole. mais du seen projet ñoom. kanti ñoom chambre de commerce de Dakar non projet amul marché international projet Sénégal la c'est l'état du Sénégal qui la finance ñu tudd ko marché international nañuy wax marché d'intérêt Dakar mu ne marché d'intérêt Dakar ñu bàyyee ko ko Dakar moom lan la fiy def même moom bu noon marché d'intérêt Dakar dafa war a collaborer ak yeneen chambre yi ñu jàppale ko ci en tout cas man muy pooru Kaolack muy li may def lépp damay collaborer ak yeneen chambre yi looloo tax ñu ñu chambre yi jël ma def ma président de l'union fii ci Kaolack yaa koy def bien sûr man union bi sax maa ngi koy def barki dem lay CIZ CIZ di jox ñu 195 millions mais union 33 millions la ci jël li ci des lépp dañ ko partagé chambre yi pour defal leen ñu am ay activités yu baax loolu mooy suñu intérêt Sénégal mënoo koo jël yemale ko sa bopp mënoo nekk di xëccoo sa entreprise nga mën a wax mais mënoo nekk di xëccoo ci ay affaire xam nga nag loo xamul xamoo ko su fekkee yow mosoo def business yow dem dagg ay garab xarmat jaay rek nga xam

jiitu amul solo lan la fa def lañ war a wax mooy lan mooy bilan lan la fa def bi mu fa nekkee pendant vingt ans avant muy nekk président lan la fa def na wax ni lii laa fa def bi mu toogee léegi lan la def ay affaire projet voilà loolu amul njariñ li am solo mooy leen def élection ñu jox ko xale yi ñu liggéey ñun ñëpp mën naa am yàgg nañ fa est-ce que yow di nga aussi pour ci li nga Comme de suite toujours toujours c'est-à-dire na jox vidéo bo xam vous ma wax vous la fait réew wax ci affaire chambre de commerce jox sax dogal ko ci tegal li réew wax rek même chose li ma wax la chambre de commerce war nekk cadre de concertation. est-ce que yéen a ngi waxtaan ci walum comme comme rewmi comme peut-être Lamine Niang ni mu ko doon defee par le passé chaque wèr wala chaque at mu jënd teg njiitu réew mi. li wax ak mom sax Lamine Niang du wax ak mom. yaa ngi koy def ba légui. ah bien sûr yow tamit ay wax ak mom. bu baax baax. Ñi ngi waxtan yow ak Macky Sall président bu baax baax waaw ñi ngi waxtan Macky Sall bañ dañé waxtan ak légui. Yag na loolu kay boo xëy naa nekk gu ma président chambre de commerce. sa xarit la sama xarit la wax, sama xarit la bu baax sax bu baax de président de la République mënoo wax ne xarit kenn la mais Macky Sall sama xarit la

est-ce que am na benn logique nga dem ci local yi gagné chambre de commerce gagné yàlla def na boo sa code de popularité mu ngi yokk kaw la nga bugg a dem ci parrainage aussi déposé pour législative yi ah waaye jàllu ma yàllaa ko dogal. am na ko am cohérence. c'est logique c'est logique. oui nit ki mën nga yóotu dara lu rëy rëy jot ko nga dem yóotu lu ndaw jotoo mais nga def logique bi du woon comme continuité la nga gagner, nga fii am nga lii nga nga nga nekk député aussi. waaw mais yàlla dogalu ko jeex na ñun lu ñëw rek dañuy xam ne yàlla dogalu ko am beeg bi lañ yemale yef et dans tout cela Bengelune. waaw ah. nga xamanteni ya ko jappalon ci euh, département yi. Hmm. mu nekk président conseil départemental de Kaolack. Hmm. gis nañ ne sax député la suma juumulee. Hmm. Hein? dans tout cela. moom soutenir nga ko le soutenir ndax gis nañ après dafa dem ci Benno Bokk yakar waaw d' accord dafa dem ci Benno Bokk yakar nekk na député wooyu problème kooku yene nañ ko ko yàlla na ko yàlla dimbale parce que liñ ñu moy mooy élection euh, mairie lañu àndoon rek jeex na. après ku ne dem yono oui loolu leeroon na nañ. ñun ñee ci dugg di wax rek mais leeroon na. mais amu leen benn problème yéen. non amuñ benn problème non non dem sax ñoo bokkoon nekk fële xëy na ay nit nekk ci biir di wax ay wax rek voilà parce que peut-être nit ñi dañoo bëggoon ma soutenir ko ci benn bokk yaakaar mais man sama njaboot dafa dafa dafa yaatu te dama xaw a am euh, respecté nit ñi tamit danaa leen wax li ma bëgg li ma gëm waaye dama nekk ne dama joxe consigne de vote. Hmm. Mhm. parce que am ñu ne est-ce que loolu aussi xawul gripper toute la machine économique bi maanaam le fait que nga nga dugg ci langue politique bi ba pare bëgg a défendre intérêt yi nga xamante ne moo di par exemple les intérêts économiques manam mbiru chambre de commerce tout ça parce que ñu ne bon xëy na comme li nga xaw fort est-ce que du xaw a indil ay ñagas-ñagas diggante nguur gi ak yow. non xam nga yooyu mooy théorie ñee rek su leen neexee léeg-léeg ñu ne waaw kii dafa opposant warta yor chambre de commerce mais Lamine Niang xanaa opposant waat la

du ci déteindre benn yoon nga defee. danti du ci du ci du ci yëbb benn yoon. waaw moom laa la wax dama ne la. Hmm. ñi ko fi jiitu woon ñu ñëkk ñoom Bamba Sourang ñoom fi nekkoon ñëpp lan la ñu woon c'est-à-dire ça vous permet même sax de mën a euh, de mën a de mën a mieux défendre parce que da nga am beneen beneen possibilité da nga am beneen possibilité mooy euh, l'économie dëgg-dëgg l'économie mooy politique xam nga politique nit ñi ko defee léegi mooy politique boo xam ne nii da nga koy wor wala def ko ay moyen de pression ah jog jël am mbolo di jël ay pression ah ndax man je pense que mom ci bopam deg naa ñu né mom da da da da da xamna né mom ay problème dana amat ndax soo laaje rek mo wax la deg naa ñu né mom dem na ne mom, bi ci Sénégal yépp moy sen président <laughs> ndax mom mom la jël di di di ko campagne deg na ko waaw dégg naa ku nekk euh, présidence ku ma ko wax sax kilifa la ma di ko wax mu ne waa bàyyil waa ji ndax nee nañ euh, association Lawbe ci Sénégal yëpp mooy seen président lu mu leen wax ñu def ko waaw loolu xaw ma dëgg laan du dëgg yàlla nag ko yàlla defal waaye li ëpp solo moom même moom bu nekkee mais na leen jaarale yoon na leen amal njariñ ndax man laa dernière fois euh, kii wu kii nu mu tuddati jarbaatu àqan mu ñëw ci man dikk ne ma suñu waa kër dañoo dañoo dañoo dañoo soxla ceeb te gis na ne may séddale ceeb ceeb bi séddale naa ko Touba sedd naa ko Kaolack mën naa ko dimbali ma may ko 5 tonnes ceeb mu ne ma may ma xaalis ma jox leen xaw ma woon sax doon yóbbu ba ko yóbboo ba pare la ma yónnee vidéo bi yaakaar ne dama ko def pour pour pour yàqal ko waaw mais na ci profité rek yàqul dara na dem dimbali ay mbokkam surtout. parce que lu tax ñenn ñi xaw a ragal loolu dañ ci gisoon épisode bi nga xamante ne amoon na diggante Mansour Kama ak Ablaye Wade xam nga feu Mansour Kama yàlla na ko yàlla yërëm Je assises nationales mhm. mais le fait que nous sommes vice président des assises nationales na ay mais assises nationales politique. c'est un mouvement citoyen. mais non assises ah, nationales. ils sont politiciens politiciens je pense que politiciens, genre euh, genre marketing ou genre genre genre euh, mais fi nga indiwaat nit ñi développement so xolé agence nationale bi ko bindé ba paré ci soko ko lo xamné ni day équilibrer état bi day jox day jox day tax citoyen bi gis ci bopam on l'a écrit beaucoup plus pour citoyenneté qu'un parti politique donc je pense que bon mu jot a ceeg Abdoulaye Wade mën naa nekk mën naa am tay ji suba euh, président Macky Sall bu nit ñi dajale won di def benen assise mën na Aziz mën naa am du ko neex parce que kon dañ naan li muy def baaxul dañ ko bëgg proposer leneen lu baax loolu la je pense que du dara te ma Mansour Kama ba bi muy génn ba bi fi Ablaye Wade di jógee gisuma jafe-jafe yi ñu am jafe-jafe yi ñi am mooy soo nekkee yor secteur privé yor syndicat wala yor dara c'est normal que temps en temps avec l'État ngeen heurte ci ay situation yu bokkul munul nekk munul nekk su fekkee tey da nga bëgg a yor benn chambre de commerce wala nga yor association boo xam ne lu état wax nga ne gongo jaratul nga di ko def. mais pourquoi Serigne yow ak ñi nga xamante ne euh, le secteur privé comme ñenn ñu bari vous n'êtes jamais sur la même longueur d'onde bi manam manam du ngeen bokku muk presque. déedéet bul wax bul wax hein? bul wax. Hein? su doon lolu suñu démé élection ñom ñu gagné ma su doon li ngay wax moo am kon ñom buñ démé damay laaj damay laaj parce que dama ko ay yu ma la. ndax gis naa ah, neel neel fani yi mujj yi gis na né ndaje. neel juróom wala juróom-ñaar wala juróom-ñett. Hein? ci ay nit waxuma la ci ay association jiite ay association waye seen association ba nekk sax suma ma tegoon ña fa nekk ñëpp laaj leen li ma wax la wax. mooy tax des fois buñu ñu organiser nga boycotté parce que même secteur privé bi daje woon na mais yow demuloo lettre bu saf-saf nga leen envoyé. déedéet demewul noonu. Ah. lolu man mako provoquer man ma dem séti beydi né ko wol secteur privé ñu waxtaan djubo wut condition yu djubo ba d'accord ci dara pour dem ci état mako def dé ma déplacé sama bopp ne ko wol ñep ñom ñu wol wëlbati ko changer mbir mi ba ko def mbir politique. dëgg naan dëgg naan député yi ndangam bëgg a jox ay leçon de morale ma leen vous ngeen da ngeen a xamoo man leen dew ma man du lii laa waxoon ak yoon maa ko sooke. Hmm. mais dañoo dem ba pare bëgg a def bëgg a def lu neex président wala ay affaire yooyu wala lu neex euh, opposant yi xam nga ñoom ñëpp dañuy wax fii ñoo fi nekkoon ak Abdou Diouf bi fi Abdou Diouf nekkee loo wax ñu ne Abdou Diouf a baax Abdoulaye Wade baaxul mais Abdoulaye Wade ñëwee ñu ne Abdoulaye Wade baax Abdoulaye Wade jóge fi ñoo fi nekk na moom baax ñu ngi préparé Macky Sall ñu ci bari ci ñom ñi ngi financer opposition yi. ñu ci ah. bari waaw. déet waay waaw ah yow tamit ñu ci bari ci ñom ñi indi financer man c'est clair man fuma ma gis kenn dama koy gis sama ma wax ak sonk dama koy wax ak sama ma wax ak président dama wax ak moom c'est sûr clair mais ñom ñep parce que xam nañ ne bu deful loolu bu fi bu fi keneen jógee ñu dee. ils sont pas juste compté wuñ ci seen bopp. mais est-ce que les hommes d'affaires am nañu possibilité contre pouvoir. mais am d'affaires mënul contre pouvoir mais mënul contre pouvoir homme d'affaires da ngay nek ko xamné ni da ngay nek parti ak état xam nga contre pouvoir moy lan moy jog di manifester wala di wax né état na daanu ñun ñun état bu daano ñun ñoo ñëk a daanu mooy seen principal client quand même hein moy sen principal client waaw non non du question client mooy suñ stabilité parce que bari na ay secteur privé yu liggéey yo xamné ni nii dépendre ci état l' stabilité du pays dépend de ci état kon ñun li ñu war moy buñu gisé lu baax ñu wax né baax na jappalé mu taxaw moy buñu gisé lu baaxul ñu ne ko attention li baaxul loolu mooy vrai secteur privé mais secteur privé buy toog di xalam ak di meeting ak du def loolu loolu du secteur privé. pourtant nag ñu ngi tapé sur la table Serigne ndax dégg naa sax ñu ne état war na leen jàppale revoir li nga xamante ne moom moo di condition d'acquisition des marchés aussi. c'est pas l'appel de taper sur la table. ah bon il faut il faut convaincre et li ngay convaincre ki ngay wax ak moom na la respecté te li nga koy tere nga li nga koy tere nga bañ ko def loolu rek te mu bañ la xam ci sew waaye ñoom ñëpp état xam na leen ñu ñu ci bari ci ñoom alalu état la ñuy duggee.

moy mu défendre l'intérêt des importateurs et les exportateurs COSEC mo wonone limiter taux de fret bi mo wonone réglementer li am ci port bi lepp COSEC moo koy def ndax conseil d'administration euh, c'est-à-dire patronat ba nga fa directeur général port nga fa directeur général du douane nga fa ñoom ñëpp def ñoo ñooñu ñoo am place pour def lolu so démé ci yeneen réew yi. Mhm. so démé Mali conseil malien des chargeurs amuñ problème yooyu mosoo dégg problème mu Mali ci affaire yooyu même renouvellement camion yi ñoo ñoo ko def yow tay importateur boo importé dañ lay jël nga cotiser zéro trent xaw ma zéro vingt pour cent jaaykatu ceeb bi yépp ñu ngi ci dugg parce que xaalis bi la buy mat quarante milliards par an mais jaarale wuñ ko yoon jaarale ko yoon ña toog ñëpp war ci décider kenn du ci euh, kenn kenn kenn kenn du ci du ci du ci du ci du ci du ci ci chargeur. xaalis boobu fu mu ak lu ñu koy ah, mais soo leen waxee léegi lañ ñu ne état koy pompe may leen da ngeen ko utile soo leen ko téyee di ko lekk kay état mi leen ci gën yaay yay jël ko mais normalement xaalis boobu. dugul sax ci du jaar assemblée nationale du lu ñuy yóbbu di ko voté ci biti assemblée musuma ko gis seen compte bopp lañ yor xam naa peut être dernièrement xam naa nag dernièrement am na ay temps bi fi karibat Wade newoon tibboon na ci xawma zéro nangam pour dugal ko ci fond de l'énergie mais bi Moustapha Cissé Lo ñëwee xeexoon na bañ delloowaat leen ko mais defuñ ci dara tey même marché d'intérêt national yi ñuy wax gare gros porteur yi renouvellement des camions fexe ba port bi normal ko se xaalisam mën na tabax sax port bu ñu ko organisé woon ci 20 ans yi mën na tabax port duñ DP World du tabax port te ñen ñoo koy fay ñun ñoo koy fay yow mën nga di am loo xam ne yow yaa koy fay Moustapha Ndiaye mi jaay ceeb yaa ngi koy fay Ablaye Diang ñoom ñoo ñëpp koy fay ñooñu xamul ay nit toog fa rek di ko def lu leen neex yàlla dana yebal koo xam ne moo koy dindi xëy du man waaye man danaa ci dox li ma ci man kon yow jàpp nga ne pour terminer li nga xamante ne moo di volet boobu euh, que ne maanaam 40 milliards yu admettons COSEC di date glané di ko dajale buñ ko injecté woon ci li nga xamante ne moo di euh, secteur de la vie chère dina wàññi njëg yi bu baax. buñ ko injecté woon ci logistique xam nga tey vie chère léeg-léeg du problème prix problème logistique la. parce que sànq dégg naa la nga ne fu mu toll nii ay prix yu wàññeeku moom bu ko nit xalaatati. non non non waxuma la bu ko nit xalaat. ah bon dama ne la. Ah. waxuma la. wax nga ñaar yoo xam ne nii wax la ko. <laughs> ko ban ak ban. <laughs> bu ko nit xalaatati. je suis candidat à 2024 ñaar yëpp. <laughs> waaw maa ñëw ko wax ci sa mën naa wàññiku parce que marché mondial bi dama ne la. Hmm. contrôler prix yi ba man cee décider état de Sénégal ñaar rek la ci man benn bi mooy euh, dindi taxam benn bi mu subventionné ko leneen li ci des mooy logistique bi parce que logistique l'ensemble xam nga logistique. Hmm. mooy transport bi mooy mooy lii jëlee ceeb bi ca bañ ko bayee ba noppi ca baykat ba indi ko transporté ko ba indi ko dakaar transporté ko ba yóbbu ko ci grossiste transporté ko ba nit ki mën ko toog sa ceeb di ko de loolu mooy logistique léeg-léeg loolu dana yóbbu ci prix bi lu ëpp 40 pour cent ça dépend du produit léegi nag loolu laa la wax COSEC rôle moo doon loolu mooy fexe ba nga xam ne xam nga logistique bi gën a metti mooy logistique bi nga xam ne bu port bi bu wàccee ci port bi ba bi muy dem ci magasin bi waaw ndax est-ce que fëkk nga xam ne ni ceeb mën na jóge ci poor bi su jógee poor bi di dem Kédougou li muy fay transport moo gën a cher ba mu jógee Thaïlande ba agsi ci port bi hmm. oui loolu mooy logistique c'est des faux frais mhm. xam nga déggoo commerçant yi naan leen j'ai eu faux frais waaw loolu mooy faux frais mooy frais boo xam ne nii daf ci dolli ko c'est un faux léegi nag soo su ministre du commerce di calculer danaan prix de revient bi lii la ñëw lii lañ koy jaayee looloo tax léeg muy am problème ak ak commerçant yi

njiitu réew mi dina duggal ab projet wala boo xam ne daal dinañ ko jéem a yóbbu assemblée wala ñu jéem a xool daal nan la ñuy tëggee loi bi pour que daal vraiment ñu jéem leen amnistie waaw fu mu toll nii nag 2024 ci la xel it jëm moo tax sax ñu naan activité économique yi ñu wax ak mesures yi ngeen di wax yëpp soo moytul daal ce sera perte de profit day doon loo xam dañ koy sànni ci ndox mi rek enfin bref dinaa ci ñëwaat euh, ma bëggoon xam tuuti rek nga nekkoo candidat 2024 Serigne. candidat jotagul lu jotagul kenn mu ci wax xamaan hmm. ci li ngay wax ci candidat yëpp maa ngi ñaan président Macky Sall mu def la Abdou Diouf waxoon nag jàkka joo jàkka ngi nii ku neex no dal loolu dal baax na ci Sénégal yakana na dana dalal xel ñi rafet lu nga dal le fait que dal amnistie bi mu yëkëti dal wa on peut euh, pas reculer xam nga c'est-à-dire euh Senghor dafa amoon temps temps bobu xam nga ne temps bu métti le multipartisme amul ci amul Sénégal amul ci àdduna bi. Hmm. dëkk yu bari.

mais dina la dina lu tuba bi naan daf lay effleurer un peu l'esprit. effleurer wu ma dara. do ci xalat benn tay sama concentration xam nga lan la. déedéet moy lan ku may seet fenn. fan wër ma ci mairie Kaolack. Hmm. wër ma ci defrat chambre de commerce ak sama entreprise ñett yoy rek. deug na yaa ngi waajal benn tournée nationale. waaw damay def ben tournée parce que damay set chambre de commerce set nit ni parce que dama xam hmm. il faut que secteur privé dajalo dama koy ànd ak chambre de métier ñu and ko pour que xam nga l'économie danañ def benn tournée pour que nit ñi xam luy chambre de commerce ba nga xam ne ni bu élection amee danañ ko jox gëdd gi mu war a jox ba président xam ne 2 millions de personnes wala 3 millions wala 4 millions de personnes c'est des acteurs économiques yoo xam ne nii ñu ngi yëngatu. parce que dégg naa économie réew chambre de commerce ak chambre de métier moo ko yore. ñoo ko yor voilà mais dese nañ koo xam yow xam nga ni ñun bi ñu jëlee chambre de commerce à 2010 Kaolack jël ko union la Sénégalais yi commencé xam luy chambre ko tudd sax presse bi di ko xam loolu

mais Dakar ci laa nekk Dakar laa. jaar chambre de commerce bi Dakar non chambre de commerce Dakar wutuma fa dara parce que foofu. non comme da def tournée kay xanaa. du chambre de commerce laay dem ah, ci chambre da nga wër rek man dewuma chambre président chambre de commerce ñoom laay seeti. waaw kii kii nee na génn na ci union amul ci droit waaye ñun dañ koo génne parce que amul lu ñu njëriñ. <laughs> amul lu ñu njëriñ. xam nga nit ki da ngay xam génn naa ci union amul luñu njëriñ yaa génn ci union ba pare léeg-léeg yow yaay fekk union événement yooyu am ngay proxlom naan naa dugg gis nañ sali benn jour ñun ñu invité foofu xëy xëy su ma jekk de gis secrétaire général ma ne kii lu mu fi def mais heureusement chimère sama rakk la nit ku baax ah, tamit yow moi ma gis ñu ne mi ngi ñëw ma ne kii lu fi def boo ne génn nga kay da dem toog jàpp sa ñaam waaye amul njëriñ yow cotisé woo joxoo dara yaa ngi tey xaalis bi nga xam ne nii moom la chambre yi war a doxee ngay jël ko xam nga jox la exemple chambre de commerce Dakar bu ñu ko bàyyee nii bu pooru Ndaayaan tuxoo mu tëj. waaw hmm. ah. parce que recette ci poor bi lay jógee 1 milliard 900 léegi port bu fi nekkatu dem Ndaayaan waa na nañ ko bàyyi mu di ko jël te Ndaayaan ci région de Thiès la bokk est-ce que yaa ngi comprendre li la bëgg hmm. te Ndaayaan c'est bientôt te ñoom xalaatuñ sax loolu soo demee nga laaj leen ko ne leen bu léegi ndaay bu poor bi tuxoo Ndaayaan est-ce que yéen a jël pont bascule. motax tax dañu war liggéey pour indi loo xam ne nii dana leen amal njariñ man loolu laa leen di woo nañ bàyyi xuloo bi ak dem ki ñëw ku ne ku ne xam nga sa morom nañ jéem a liggéey liñ moomul ñu bàyyi ko fi. dem liggéey parce que émission non non du question waxtaan. xam nga seen biir mu jeex du question waxtaan xam non xam nga Sénégal lu ñu dem. xam nga wax dafa am ak waxtaan. woy dafa am ak woyaan. dox dafa am ak doxaan. wolof saa yoo dégg mu ne la waxtaan rek justul. lan moo juste kon. non mooy li ma la wax mooy waxante dëgg. dégg li mu la olof dafa dafa fort. waaw tëju leen ci néeg kenn ngeen non non du tëju nañ appliqué texte si c' est clair appliqué texte yi li ci am nañ dem élection. suñ demee élection ku gagné. Hmm. waaye fi nii ñii fi nekk moom kenn amu ci euh, koo man a waxtaanal waaw nañ nañ dem élection dañ lay waxtaan a yow rek pour dugal la ci ay affaire nii nga noppi nangam nangam déedéet man kay fi ne nañ dem élection rek suñ demee élection pare ñu waxtaan. d' accord Serigne jërëjëf kontaan naa merci jërëjëf Serigne Mboup euh, may fàttali suñu mbokku téléspectateurs yi ne tey suñu gan moo doon Serigne Mboup euh, mi nga xam ne nag euh, moom union union nga xam ne union des chambres de commerce et d'industrie industrie Sénégal union nationale moom moo ko jiite nekk président chambre de commerce industrie et d' agriculture bu Kaolack nekk aussi maire de Kaolack nekk capitaine d'industrie industrie jiite groupe CCBM tey nag ñu seqoon moom waxtaan ci wàllum koom comme réew mi ak wàllum mbiru chambre de commerce yi xam ngeen bëri na coow lol ak euh, li nga xamné modi tamit balum politique ndax xam ngeen aussi mënuñu ko fi dindi ndax euh, Sénégal mu ngi jëm ci élection bu mag mu di en 2024 euh, est-ce que quand même lii débat politique bi war na le débat économique wala déet parce que ne l'économie est au début et à la fin de tout ndax économie mooy réw kon baxna ci circonstances humaines yi ñu jëm a quels sont un peu li nga xamanté moy les politiques économiques mises en place wala lan la acteurs économiques di xaar ci li nga xamanté ne di les acteurs politiques kon sëriñ ñu lay gërëm di la sant bu baax waaw ma dolli la rek xam nga yaa ngi maanaan tournée. waaw xam nga ñoom def nañ tournée. ñoom ñoom def nañ tournée. dégg naa ne def nañ ko dana ci chambre yi dem di wax seen i waxi waxi picc yooyu waaye dama ne leen su fekkee dañoo dem leen jox damay ku ma wax rek ma ne ko waa nit moom man na sàcc sa alal ba pare dikk naan kaay may la ci. def nañ tournée xëy na convaincre nañ benn chambre de commerce bu ne génn ci union Mais pour man ne parce que mais il y a un ay parce que niveau de la justice mais à deux reprises à chaque fois ils ont obtenu gain de cause Oui, porte plainte xam nga ñun justice blanchir na a pas de problème est-ce que nous avons réellement ça aussi non non du affaire sàcc ngeen waxuñu woon affaire sàcc ñun li ñu doon def mooy ah. diffamation la woon déedéet man porte plainte moo doon benn yoon ci affaire sàcc. Ah, kon man mosuma leen porte plainte affaire sàcc mosuma leen porte plainte man affaire diffamation laa def te xam naa lañ def sax waroon nañ leen ma condamné waaye fañ jaar yuuxu yuuxu yuuxu bañ yërëm leen xam naa. <laughs> safurla xam naa lépp <laughs> xam naa lépp. jërëjëf sëñ xam naa lépp. jaar nañ jaar nañ yuuxu fu ne dara dara waaw bu ñu defee lii danañ def lii danañ def lii ndax kilifa da cee bokkoon Pape Diagne ci bokkoon bu grand sëriñ ci la bokkoon waaw mais après biñ biñ ñi ko def sax bi ñu ma woowee may leen garaawal ba def ma appel sax. lu duuf ci nag li daal moo xajul ci cin bi def ma appel sax pour na droit def appel waaye def ma appel sax dégg nañ bàyyi. gis nga dama la bëgg message bi nga dégg. waaw xam nañ seen bopp nañ am ngor ñoom ñëpp. ña ko dar ci biroom xam nañ bu baax bañ ko opposé ni ma ko jàppale moom ci boppam tamit xam na ni ma ko jàppale wut ci ma woon ci moom dara lu dul mu jaarale chambre de commerce de Dakar ci yoon bis bu ko defee rek ñu am jàmm loolu mooy waxtaan na ko jaarale ci yoon mooy bu mu jàpp ne chambre de commerce de Dakar mooy chambre de commerce Sénégal Dakar région la lépp lu Dakar moomul na ko teg tekki taabal région yëpp séddoo ko nee na man tamit kawlax lu ñu ma woon ma ne ko d'accord na waye lepp li ci ëpp solo nit day am ngor nit bu la nit ki defaree lu baax do moins delloo ko lu baax lolu soko ko mënul nga may ko jamm waye man ciowli mom arrangé na ma dama bëgg képp ku ma déggoon nga xamni ni na ma ne wona ak yow 60 délégué wax la nga xamni ki tay lama waxon ma ak mom doxalu ko te yaakaar naa ñu ci bari xam nañ ko voilà. loolu jërëjëf jërëjëf yàlla ko yàlla dimbale nag.

Quand waxtaan ak moom ci point yi kon mbokk yi fii yemale bi ñu di gërëm di leen sant di wax